que moom foofu la gën a daal di parce que dafay bay xam ñi dañuy ñëw di dugg di dañ kumpa di photo te foofu boo amul yenn matériel yenn ci casque yooyu waruloo dugg ci biir euh, chantier yi mel noonu chantier bi dafa xaw a doy waar donc moo taxoon ñu insisté pour ba loolu mu mën a gannaaw loolu nag ñu ngi jéggalu parce que koo xam ne yaa ngi woon jiitu teeru nit ñi boo tardé war ngaa dégg ñu ngi dégg ñu toog mais di rafetlu rek ki nga xam ni ñoo ngi jiitu muy ak euh, sëñ Fallou lépp loo xam mënuñu ak sëñ Babacar mënuñu fee def loo xam ne ñoom mënuñu ko def te ñoom seen yëpp la donc ñun dañuy ñëw rek accompagner leen lépp di leen gunge leen mais ñi ngi tam yóbbante gërëm xam naa loolu ci jigéen antara la gannaaw ba ñu sant préfet sant gouverneur ci ni ko maama xam waxee nii ñu ngi a am lu mel nii ci ziar général di sant itam ministre de l' intérieur ci taxawaayam ci xàmmeem ak jàppale bu muy jàppale le président de la République ak xam ni que Seydi Hadji Malick këram la Tiwaawan dëkkam la nga xamee ni lii am na ci saa la jël disposition yi mu war a jël yëpp gouverneur mii itam taxaw ci taxawaay bi rafet gaaw a gaaw xamee ni dalal na kër gi dalal sëñ Moussa dalal ci saa si la ma bëgg jàpp gën a gaaw ci gën ci ko xat loolu itam ñu ngi leen ciy sant di ci yóbbal ci kan le ministre ñaan yàlla lii ñu dëgg ma yàlla na ko yàlla mottaleeg sago xalifa bi yàlla dafa ko lépp mu àgg mu teeru garam moom ak ay rakkam ak li ko sëñ bi ak maa ngi jëpp ñu ngi ziar di président